cax nga ma nag de. mais dama laa cax tontu ma. mais loolu loolu moom xóot na de. Ah. loolu moom xóot na moom loolu moom il faut nga xalaat si. foog nga xalaat si loolu moom il faut nga xalaat léegi léegi meer lan la nga tàntuwaat léegi fekk deux minutes nga taxaw nga xoolaat sa xel tam lu mu la jox. waaw léegi garaaw la ba léegi même tuuti ma réfléchir. ah ati waaw waaw. Ah. tey mu neex de ak sa lay laaj. taxaar naa si nag mais mais da ngay kuul nag gaan bu jëm waaw ah, maa lay dégg. gaan loolu dana war sax gaan loolu gaan nag maa cax ma